des nag am naa lu gàtt rek loo xam ne bëggoon naa ci yàlla muy loo xam ne ñëpp dañ koo bokk ñëpp yëpp ñu am ci nag ñaari cër mënuñu wax sax ne nattu la waaye ñun dañuy jàpp ne ndimbal la ci ñun ndax li tax muy ndimbal mooy euh, euh, dañu am fu ñu bëgg a egg ci ñun suñu bopp dafa am fu ñu bëgg a egg amit fu ñu ne waaye am lu ñu lu ñu gëm moo tax ngir mu nekk it euh, noonu lañ ciy bëgg a doxe loolu nag Euh, bu dee ci sunu diggante rek la ak yàlla moom lañ ko seeral ak bi nga xam ne moom lañ yaakaar euh, mu mel ne problème mu ndox ci Touba yàgg na fi am yàgg na fi am lool metti na lool it nag rawandate na jamonoy mag ma am lu nga xam ne bëggoon na wax ko fii muy manqué ndox màggal metti na ndax dafa fekkoon Tuuba manqué ndox balaa màggal waaye nit ñépp war nañu def seen xel bu Tuuba képp doon am ndox lu màggalit bu màggal ñëwee dana manqué ndox kon ku dëkk Tuuba yaa war a jël say matuwaay màggal jotee li xam ne nag mooy metti mooy màggal jàll ñun ñëpp ñu ne fi di mar loolu nag defe naa mooy jafe-jafe jafe-jafe boobu du jafe-jafe bu kilifa yi yëgul yëg nañ ko xam nañ ko di ko metti lu ànd ko askan di ko metti waaye nag euh, jamono ni mu demee tax na euh, ñi ciy wax bari kenn ku ci nekk yaa ngi ciy waxee na nga yéenee wala na nga wala wala wala ñu nga ci euh, ñu am ab liggéey bu ñu ci sant ñu seq ko ak Maawu Rahmati ak commune Touba waaye euh, sous-préfet ñu ngi koy gërëm moom it di ko beral cantam mu gunge ci liggéey boobu ànd ko ak effort ci oyof fokkaalu Bamba ñi xam ne moom moo fi nekk doon seen point focal euh, mu doon liggéey bu am solo bu ñu ci daan def loolu nag dafa jotu wu tëg bi nga xam ne tëraloon nañ ko mu jëm ci màggal ci ngir mën a gën a yéwénal jafe-jafe yi ci euh, ndox mi ci jëm ci màggal bi loolu programme spécial la woon boo xam dañ ko seqoon ak effort ak commune bi dox ci nag bu yàgg yàgg ah ñun nag ay dongo rek lañ ay taalibe lañ yu wut ngërëm eh, ñu leneen nit lu ñuy dàq lu dul ngërëm ngërëm li rek sëriñ bi rek lañ ko yaakaar yaakaaruñu ko ci kenn eh, programme boobu bi ñu ko tëralee bokkoon na ci camion yi teel ñu joxe un numéro ku soxla ndox woote ca balaa màggal gee ñëw ñu ñëw may la ndox fa nga nekk def nañ ko ba màggal gi des biir semaine màggal gi defe naa alxames lañ arrêté loolu ajjuma ñoo war a duggaat ci beneen programme boo xam ne la ko ëmboon mooy ndox oto yi ndox yi dem di roote yi ci biti dëkk bi di dugal ci dëkk bi waaye bañ di root di dugalaat ci dëkk bi ndax loolu tax ndox a yokk waaye dañu defoon li yokk ndox mi mooy oto yi dem di rooti ci euh, forage yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw dëkk ci ci ndox Touba di indi Touba waaye forage yi nekk Touba yépp continuer ñoom di joxe ci réseau bi maanaam di joxe ci tuyau yi muy di egg ci kër yi loolu moo doon suñu programme loolu it doon na may ngir euh, camion yi xam ne ñooy def ndox ci màggal du yépp ñoo ñooy maye ndox da ci am ñoo xam ne ay nit ñuy liggéey ñoo ko moom di jaay seen ndox te dañuy rooti fi nit ñi rooti fa la ñuy rooti kon ñooña bu ñu rooti bu ñu rooti woon ñun ca biti ñooña faaw kon dañuy ñu toppi dem rooti ca biti su ko defee kon lépp lu xam ne ndox la mu ñuy liggéey ci biir Touba duggaat ci biir Touba waaye kenn du ko rootiwaat biir Touba di ko jaay wala nga koy rootiwaat biir Touba di ko sotti biir Touba kon loolu ak yokk rek la mënoon jóg looloo nag ñi ci jéglu kilifa yi bu baax ndax ñun defar rek moo ñu tax a jóg mosuñu am benn yoon it menn xel mu defar loola it ab xalaat la boo xam ne jógewutoon ci kenn nit ay mbooloo noo ko tëgg xalaat ko bu jubóo ci war koo doxal kon loola man en tant que responsable coordonnateur comité d'organisation ah euh, dama ci jégalu ci lifa yi ndax nit ki nga xam ne mën nga koo rootloo mu dem rootal la su la xañee ndox euh, rek ñu ngi leen di xam ne dañ ko tëyu waaye bu sañoon du demee noonu loola it la ko dindi mooy baat baat moo nu liggéey loo baat moo ko dindi loola noonu rek la demee li ci des muy euh, problème mu inondation yi fi am loolu it problème mu assainissement bi gis ngeen solution yi xam ne mooy moom lañ ci jël màggal gi daataan am sëñ bi taxaw ci Touba ci Kanam taxaw ci état bi taxaw ci lis ci man def nañ ko mais loolu ndoxu taw la ndoxu taw moom yàlla waxul kenn koy wàcc li ci am kay mooy ñuy ñaan autorité yi ñu xam ne yàgg nañ ko wax ne nawet màggal gi ci nawet la jëm waaye léegi kenn nattat luy tune ne màggal gi ci nawet la jëm lii fi am ren yàlla bu ñu dimbalee ba ñu fekk ko mu bañ am mu bañ a amaat lool nag man koo waajal balaa màggal gi defe naa moo ci solution ah lu mel ne yoon yi ba tey am na ay rëq-rëq yoon yu bari fii gis yéen ko gisandoo xam ngeen ni euh, bari na ay problème yoon toj na bari na ay ay pax ay ay ay ay ay yoo xam ne mu ti ku wéer bari na bari na ay ay ay problème yooyu yëpp autorité yi gis nañ ko xam nañ ko jàpp nañ ne li ci waa Touba mën a dund lu dul événement fekk ci événement parce que bu dul événement sax danger la ci population waaye nag bu toll magal Touba loolu bu amee problème lay jóg ci gàttal daal man ñaari point yooyu laa gisoon ne warees na cee mën a kàddu a addu ngir leeral ci askan wi ndax askan wi dañu war a xam am na loo xam ne ku bëgg xam war nga mën a am foo ko mën a xamee moo tax wax ji jóg ndax euh, sëriñ bi lañuy liggéey waaye sëriñ bi askan wi tax muy liggéey kon loolu noonu rek la